إني أخاتب النصارى ترى في أرضهم لمالك المنترى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جري بك طالبي نوم لين نوي di لين زيار te jiital ci nuyoo beeg ziar bi Cheikh Modou Mountakha di nuyu itam suñu sang yii nekk suñu ginnaaw di njabootu sëriñ bi di fàttali rek ne yeesalaat nañ digal ci Cheikh Modou Mountakha ngir war a wecc ko fii ci Angleterre London kër goo xam ne kër gu lislaam lay doon ñu moomale ko Serigne Touba muy kër Serigne Touba di ci woon nag bépp taalibe góor ak jigéen mag ak ndaw yàlla doogale nag woote nañ bisub jaayante ci weer bii ñu nekk di décembre le 26 di dimanche bii di ñëw bu dellusee ñu woote jaayante boo xam ne nag dañoo soxla téeméeri murit yoo xam ne ni kenn ku nekk da nga jaayante ak Serigne Touba 1000 pounds 1000 pounds ko amee li bëgg. bu ci yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba àndee dina mën a jàppandi ñu ngi woon ñëpp nag góor ak yéen mag ak ndaw ku ñaan yàlla ñu yóbbu ñu jàmm ca ba te ñu tal ko sañu am rahmaan rahim borom Touba salaamaaleykum rahmatullah ñu ngi siyaare mbokki murid nekk ci àdduna bi yëpp ak mbokki jullit ñëpp euh, bu ngeen gisee ndaje bi euh, murid yi toog di woote euh, lenn képp ko muy bëggal Serigne Touba kërug lislaam fii ci Touba Angleterre dëkk bi di London liñ ciy leeral rek mooy kër gi maanaam fan tàmbale woon fi ñu toll ak fi ñu jëm fan tàmbaloon mooy gis nañ dañu am kër sëñ Tuubaa guñ fi gisoon ba taxoon ñu woote fii euh, ci euh, ci ab liggéey boo xam ni maanaam tolloon na ci cent cent cinquante mille pounds euh, kër ga cent cinquante mille pounds lañ ci soxla woon ngir bëggoon a dem ci banque bi waaye ba ñuy ba ñuy dajale cent cinquante mille fekk na maanaam kër ga cate waaye su sëriñ bi taw féexal nu ñu gisaat beneen kër goo xam ne kër gi maanaam mi ngi ñu ngi ñu ngi koy weccee maanaam ci huit cent mille pounds huit cent mille yi nag daanaka banque banque bi daf noo xamal ni moom balaa balaa mën a wax ak noonu foofu ñu am deux cent cinquante mille mooy 30 pour cent yi nga xam ne moom la ñu moom moom la moom la ñu daaj deux cent cinquante mille lañ fi dajaloon muy cent cinquante mille yi li ci des li ci des nag li waral woote bi mooy yeneen cent cent mille lañ soxla fi mu toll nii ci nu mu gën a gaawee loolu moo tax murid di woote le 26 bi di bisu jaayante kër gi nu gis ñi nag maanaam yitte jënnu ci am lu tax maanaam murit yëpp boobu ba léegi maanaam kenn noppaluwul kenn sa xel eh, dalul mooy kër gi dafay doon ndamul lislaam buñ ko amee ndax barab la boo xam ne ab église ak église la maanaam te xam nañ église moom li muy représenté maanaam ab église lañ gis maanaam bëgg koo soppi def ko kërug lislaam def ko def ko def ko def ko kërug sëñ loolu moo tax maanaam ñu di ci woo muritu àdduna bépp ak képp koo xam ne te yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu muhammad rasulillah ñu ngi lay woo ci liggéey sëñ tubaab bi xam ne du liggéey sëñ Tuubaa na sëñ Tuubaa la ko a jug lépp mooy ndamal lislaam siyaara faal bakkib siyaara faal bakkib siyaara faal yéen bokki jur yi bokki taalibe yi doo leen siyaara lu bari lool di leen xamal ne li tax ñu lay fii tey mooy bis kër gii xam ne moom la ñu waajal di ko defal Serigne Touba fii ci tubaa Touba Angleterre London mooy dégg ngeen kàddu yi Serigne Fallou Diop jiital mooy kër gi mu bëggal Serigne Touba kon ñu xam ne kër gi li muy jëriñ weesuwut di joxe suñu diine joxe lislaam te Sëriñ Tuubaa kat fu mas a nekk fu ne dégg ngeen ko ba ci eh, jàkkaam jooju gaa yi doon daane fu ba ca ma lambar na kon yaakaar naa Sëriñ Tuubaa fonk na fonk goo xam ne gii fu teel bi nekk war ngaa fonk diine fonk goo xam ne gii war ngaa xam ne foo nekk fa dafa xaaree ëllëg. ñooñu kon bokki taalibe yi ni ñu ko waxee rek ñu ngi woo mag ñi ndaw ñi jigéen ñi kilifa yi. liggéey bi ñuy woote nag liggéey suñ suñ borom la ndax liggéey suñu doom mooy liggéey suñu borom rek kon nag maa ngi woo ñëpp kenn ku ne li la suñu borom di wërsëgal wërsëg yi nañ ko génnee ci xol yi tam yam ci ci jiba ci poos farata ñoo mu génn waaye ko def ci xol ko génne ci xol yi def ko ci portefeuille yi te jox ko sëñ Tuubaa liggéeyal ko yàlla ci woote bii nag rawatina ñu ngi koy woo adduna bépp rawatina Angleterre gii rawatina waa waa London gii noo ngi yeesalaat kàddu yi di woo nag waa UK bi yëpp daayira bi fi nekk yëpp di daayira Serigne Touba rawatina daayira bi nga xam ne ni mooy fédération UK bi mu West Absalon bi nga xamante ni ci njiitul Baye Dame Gueye fépp nekk suñu kàddu rek xamal la yaa ngi ci biir kenn ku nekk ñu ne ko yëgal xam ne kër gi fii lañ koy wut ci London waaye nag murid yëpp ko moom jullit yëpp ko moom kon ñu ngi woo ñëpp ñaan yàlla ñu àgg ci bis ba te am fu la kawe suñu yaakaar asalaamaaleykum wa